passé de trente et une minutes de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ñu ngi ci virage bu mujj bi dañuy ànd ak Asia euh, dugg ci réseaux sociaux yu xool li gën a fës ci bës yi assi euh, ma bàyyi la nga doxal. Euh, Aïcha léegi ñoo ngi doon wax waxu kër yu daanook nu ñu koy tabaxee ak yooyu noonu waaye it ñi nga xamante ne ñooy sunu takk der yi ñoo ngi def liggéey bu mucc ayib ci wàllum saytu ñi nga xamante ni rek ñoom la ñu jox yoon wi ñi nga xamante ne ñooy chauffeur yi di mën nga bëgg sa boote mën nga bëgg sa woot sama mag nga waaye tey soo wàccee naa wax ak yow moo ngi noonu donc Aïcha euh, mu doon loo xamante ni ñoo ngi def seen liggéey def liggéey liggéey bu mucc ay ku nu ma ko waxee euh, ci bus yi nga xamante ni Aïcha aski pare dañuy jël li nga xamante ni rek moo di ay bon wala ay chaise di ko teg ci Versailles dañ lañ koy tere ñu dem xooli waaw di mottali dañ <laughs> dem xooli élément bi ñëwaat ci plateau lii ku wax li am loo ba <laughs> temps bi yembul waaye li nga wax moom boo ko gisul sax di nga ko comprendre noonu ay banc ak couche yi nga xamante ne xale yi moom la ñuy teg di ci toog ay mag yi jëmm ñoo koy jël teg ko euh, ci ci Versailles yi euh, toog ci euh, ñu tombe nag ci benn koo xamante ni benn takk der boo xamante ni wax dëgg yàlla def na liggéeyam waaye it xas na leen ndax nee na leen lii de chauffeur yi sax suñ ko nangu woon ñeen waroon leen ko woon nangu ndax accident su amee da ngeen di wax ñun la ñun takk der yi wala gouvernement bi la fekk yéen yéen a war a aar seen bopp ndax bus yi Aïcha du suñu président Macky Sall moo fay dugg wala premier bi di jéem a saytu nga xamante ni mooy place nombre de places yi nga xamante ni moom la donc ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñi nga xamante ni ñooy dem Euh, ñu ñuy ñu ñu leen di yóbbu euh, mënuñu leen wax ni que banc yi mënu fay mënu fay toog waaye ñoom it ñooy indi seen i banc ñoom nga xamante ne ah. ñooy waaw ñooy indi seen i banc toog si ba yegg fi ñu jëm mu doon loo xamante ne nag mu toll ni euh, lu ñu ko def statut bëri na lu mu nekk ci ci ci ci toile bi gars yaa ngi koy waxtaane nañu nañu nañu éviter yooyu client yi si boppam ñooy indi seen i banc ah lu ci nekk yaa indi sa chaise teg waaw mais xam nga sax ñu si ëpp sax chauffeur yi ñoom ñoo koy Versailles comme nañu ko teree woon mhm. léegi ñoom ñu dem dindi Versailles parce que am na oto yoo xam ne actuellement dañu dindi Versailles léegi nag ñoom ñëwul seen banc coach yooyu nga xamante ne moom la ñuy teg taabal yi jox xale yi ñuy lekk <laughs> boo ñëwee place yi fees na man bëgg a dem Aïcha du ma tax a toog si banc coach wallaay parce que yeexu yoon te àgg fa nga jëm moo gën nga teel a dugg te àggoo fa nga jëm donc nañuy def attention bu baax ndax imagine t yow nga toog si banc oto bi ne bërit yow da ngay jug mbëkk te boo mbëkkee xam nga ne jéye mën naa am. doo xam fooy waaw nañu bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu daal. vraiment voilà élément baa ngi noonu ah siwo. waaw mu xam ne nag. on est tamit. ah nii de. lii de siwo la moom. buñ dëpp ak ak ay banc. ak ay noo saf saak. place jeex na nga ne xam teg sama saak toog ci. jëlal yéen a ko njëkk a nangu souverain mën naa ne sax def dara à cause de vous eh, yéen a ko nangu seen bakkan la waroo leen ko nangu téel jëlal gënal tabouret gënal eh gënal gënal tabouret tabouret yi na wàcc ñu teg leen bés ak ñu teg ay chaise jëlal jëlal jëlal jëlal tabouret bi jëlal jëlal jëlal jëlal yéen yéen a ko mën a bañ yéen a moom seen bakkan téel jëlal jëlal téel jëlal wàccal wàccal wàccal indi indi boo leen jógee jama jama wàcc leen yéen ñi nga xam amoon place yi bu wàcc leen wàcc leen wàcc leen wàcc leen oh oh yéen ñëpp wàcc leen yéen ñëpp wàcc leen yéen ñëpp wàcc leen xool ay ay ay ngeen ñun am de tenue xoolal ay chaise ñi nekk ci Versailles yëpp la wàccee. Mm. waaw nee nga leen ñiy teg ban <laughs> yëpp wàcc leen ci suuf. <laughs> bon xaw kam xaw takk der bi moom moo filmé affaire boo xam xam nga internet bi moom ku ko fekkee ba mel na ni ku doon wax moom moo filmé affaire bi. ah, ah ça c'est pas sûr. waaw waaw non c'est pas sûr. je sais mais c'est pas sûr mais dafa mel ni kii parfois aussi tamit mën nga lire si image parfois kuy mhm. filmer aussi tamit di nga xam ne moom mooy moom kuy wax moom mooy moom mooy filmer bon passons loolu c'est juste c'est juste honnête mais bu fekkee ne moom moo ko filmer war a ko woon filmer mënoon na def liggéeyam rek point mais loolu bëgg a wax ne moom mooy parfois Sénégal dañuy jaxase lu ñuy wax des torchons et des serviettes quoi loolu lu ma bëgg a wax foofu moom mooy euh, euh, xam nga gouvernement bi dañaa jëloon ay mesures janvier 2023 ne faut ñu bon ak ay ak ay euh, yeneen mesures une vingtaine de mesures bon ça moom mooy euh, dindi euh, Versailles mais loolu da koy def si dëkk boo xamante ne lépp mat na parc automobile fii Sénégal ñëpp xam nañu doyul yaa ngi gis do comment ça se fait que parc automobile boo xam ne nga ne da ngay supprimer ay ay Versailles te loolu sax munu nekk mesure boobu sax bu loolu bi ñu ko waxee si guddi googu balaa si suba gi la ko chauffeur yëpp weddi mais nag bon lii kenn du ko légitimer jël ay pour man ça c'est pur amateurisme total la quoi jël ay banc ay ay je sais pas banc en caoutchouc ay ay chaise di koy teg si biir ay oto loolu c'est pas c'est pas c'est pas responsable mais lu ñu war a wax rek au moins <coughs> pardon lu ñu war a wax rek moom mooy ñi nga xam ne oto yi nga xamante ne réglé wuñu amuñu ay kayit yu baax Euh, ba pare aussi tamit euh, euh, ci carcasse oto bi tamit baaxul soit amul def naa at deful visite technique. si mhm. yooyu pour man moo gën a nekk important fuuf que ay Versailles pour man Versailles Versailles nan la andee la mooy rapport Versailles ak accident je suis d'accord que ay ay. non non non je veux dire que. accident su amee nekkul Versailles moo tax accident yi xam nga la mooy koy andi d'habitude am na ay études moom mooy oto yoo xam c'est défectueux oto yoo xamante dañoo waroon a dañ ko waroon a gaare bu yàgg muy kon daw deful visite technique suñu demee gars yi neexal après ñu bàyyi mu rouler d'habitude loolu mooy andi accident yi mais nekkul par exemple oto bi da def Versailles loolu moom mooy andi accident alors am na solo am na solo maintenant bu ñu revenir un petit vidéo moi je pense que c'est important de filmer ces de choses là pour que pour remplir euh, li nga xamante ni moo di ay chaise ñu éviter ko ah mm-hmm. ça c'est important ñu wane ko mais beneen aspect bi nga xamante ni seetlu naa ko ci vidéo bi ñu commenté ko un peu mooy saleté bi ci biir bi bi gis ngeen mbalit bi. mbuus yi y' de mbalit moom. non mais y' a trop de mbalit. donc ñun aussi. non mais non ils n'ont qu'à veiller à la propreté de ce bus là parce que ay nit ñoo fiy dugg. Mhm. mën nañu def chaque voyage bu ñu ñëwee. balaa ñoo yebaat ay nit. ñu am nit koo xamante ni day ñëw. bale ba mu set ñeneen ñëw dugg. ah la propreté là c'est loolu laa doon wax sànq si bâtiment yi moom mooy développement. si nit ki lay commencer. su fekkee nit ki mënul développer mënul mënul xamul la mooy mécanisme de fonctionnement pour développer. loolu mënul dem si lépp la si lépp la valable. loo gis rek si nit ki lay tàmbalee par exemple man le propriétaire du bus wala le chauffeur wala les apprentis ñoom bu ñu amul bu ñu xamul amul conscience ni bus bii dañ fiy accueillir ay nit. suñu bus la dafa dafa war a set. loolu c'est pas du seen liggéey. loolu ñi leen ñi nga xamante ni ñoo leen. employé GIE yu mag yi ñoo war a jël ay nit. waaw mais léegi mais bus yi ba mu set. non bus yi ay nit a siy dugg. non bus yi nit ñi toog ñoom ñooy naan seen ndox sànni ñooy lekk seen banaana sànni ñi ñuy toog waru ñoo salteel bus bi. loolu tamit am na loolu tamit am na. asi ñu jàll si. doog naan seen ndox bi sànni <laughs> ñu a naan li ma war a wax ci dëkk bi daa bëri de <laughs> mënuloo wax lépp ayta ñu dem. ñu terminé ko Aïcha si Cheikh Ahmed Cissé mi nga xamante ni ñëpp dégg nañ euh, li nga xamante ni moom la euh, waxoon euh, ci mbirum alquran ak sunu borom ba tax rek ñi nga xamante ni ñooy imam yeeg ustaas yi képp koo xamante ne nitu diini nga rek jug nga taxaw ku nekk rek def nga sa plainte toog di xaar nag ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed se waaye moom it def na sorti wam fu mu toll nii dafa mel ni nekkul fi nga xamante ne rek moo di Sénégal am na nag ay vidéo yu bëree bëri yi nga xamante ne jot na koo def waaye dañ ci sembat ñaar rekk yoo xamante ni euh, wala benn boo xamante ni rek jot nañ euh, déglu lu mu wax nañ ko dem seetaan ni ñëwaat ci plateau bi. bugg a laaj ah? bugg ngeen tontu ci en fait dafa am ñu bari ci sénégalais yi Cheikh Ahmed da nga alako Cheikh Ahmed da nga bon dafa yàqu dafa rékkeeku du wax lu baax du nit ku baax yépp maa ngi koy dégg ah. waaye léegi pour ma laaj leen li ma leen bëgg a laaj li ngeen wax yépp dëgg la am na. léegi comment nit ku mel noonu ngeen di ko déglu di ko seetaan comment nit ku mel noonu am cër ci société bi di waxtaan ak ñi jiite diine ji waxtaan yu sori xóot di waxtaan ak ñi jiite administration kilifa yu mag yi di déggoog ñépp di déggoog bépp secteur boo jël ci Sénégal lan moo waral loolu su ngeen ko tontoo rek coow lu jeex guerre bi moo commencé door mais guerre bu civilisé lay jël tuma saaga ndànk-ndànk rek ma leen koy corote di zonse di fëlaale léegi nag da ngeen di ñëw tontu lan moo tax li ngeen wax ci man ci mbon yépp ne niti safara laa iblis laa léegi laa taal suma live plus de mille personnes daw ñëw interview bu ma def ngeen taw dem seetaan mais comment nan laa mën a amee cër ci société boobu question la su ngeen ko tontoo dinaa ñëwaat du ma tëj benn commentaire tontu leen rek <laughs> Jamra laajal ma leen ak Matar Sarr fu plainte yi toll mbaa ñu ngi ciy góor góorgóorlu na leen ñu continuer buñ bàyyi. Aïcha mbir maa ngi noonu euh, donc moom tamit euh, def na réponse am jaruma ci jaaraan ndax foog naa ñëpp euh, déglu nañ ko waaye fu mu toll nii nag moom plainte yi ëpp na sax plus de cinq wala six plaintes yoo xamante ni tegu na voilà donc ñoo ngi koy xaar ñëpp wax nañ nag ku mel ni Pawlish Mbaye aussi wax na ne fu ko gis moom du du ko yóbbu gendarme du ko yóbbu dara waaye dina ko dóor ba mu sonn teg ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne jot nañ wax ci mbir mi nga xamante ni rek jot na ko wax waaye it baalu si àq nañ fàttaliku ni yàlla lépp nga koy def ñun ñi jaamam dañ koy def lu ne waaye suñ ko baaloo ak mu baal su fekkee ni que rek mën ko jéggal ñu jéggal ko mu mën a ñëwaat ci société bi nekkat moom tamit nit mën a xam exactement lan lay génn ci gémminam Aïcha waaw xam nga je pense que bi mu baaloo yàlla loolu digganteem yàlla la sa digganteeg sa borom su wéyee sa digganteeg sa morom mooy des fi mu toll nii nag digganteem ak ay morom moo des mooy ñu mujjee génn saaga leen léegi ñooñu ñooy xool ndax dañ koy baalam duñ ko baal moom fu mu nekk mu ne. dama dégg mu ne maa ngi sama kële ba si sa doola. new fi de. génn na frontière xaw ma ne waaye Cheikh Cheikh accu baax na <laughs> euh, lu ci mënti am daal nañu bàyyi xel ñun Sénégal ku nekk am nga sa ngëm-ngëm mhm. donc boo tolloo fenn fii da ngay éviter di def yenn yi mhm. accident làmmeñ nag du ñàkk mhm. parce que kuy wax moom mooy juum mais boo juumee tam nangu ne juum nga boo ko rectifier rek jeex na bul toppaat si bul nag ba jànd dem ko topp si bi di dóor donc yooyu noonu day indi ay détails ay polémique bu ko defee ku nekk di wax te moom am na fu ko Sénégalais yi tekkoon bi mu ñëwee donte ñëwee sénégal yi accueillir nañ ko bëgg ko ak façon de communication mi ñu di ko invité un peu partout donc loolu noonu mu am Sénégal bu mu ko yàq mm-hmm. Sénégal ñu bëri dañ koy suivre comme ni mu ko mm-hmm. waxee bu taalee laay fam ñëpp dañuy ñëw seetaan Cheikh Ahmed Cissé lan lay wax kon yu mel noonu bu amee accident la mais bu ko nangoo ba rectifier ko aussi na yem foofu bu mu continuer waat di jàll ñoo xamante ne ay kilifa lañu mm-hmm. vraiment loolu moo gën a aggraver ah. affaire bi Aïcha bon man xaw ma sax laa si wax ci vidéo. tu es au courant de cette mais bon ah bah comme je suis euh, comme tout le monde. bon il faut que daal nit yi responsable quoi. et puis bon su fekkee ne euh, da am kii médiatique euh, audience nit yi am nga ñu lay suivre. Mhm. il faut être exemplaire. Mm -hmm. c'est important il faut exemplaire. alors euh, benn aspect bi may xaw a leeral tout le temps rek mhm. da ngay gis nit ne su ma taalee sama live damay am 3000 personnes wala 2000 personnes wala sax 10 000 personnes yu may seetaan mhm. non mais Sénégal nous sommes combien. nous sommes combien de millions de sénégalais. 18 de sénégalais nga am ci benn 3000 wala 4000 bu lay seetaan a lay seetaan non mais c'est insignifiant bi nag mooy je me dis que nii yëpp dérive utilisation wu ak nan ak naka la ñu utiliser les réseaux parce que TikTok bi xëy na problème mu Cheikh Ahmed moo fi nekk. mais am na yeneen yu gën a garaaw. am na ay nit yuy taal seen ay live. di saaga kilifa diine yi. Mhm. di afficher seen photo di leen saaga. et pourtant ces gens-là ay nit ñu connecté wu di seetaan di seetaan yooyu saaga donc je pense que aujourd'hui le combat mhm. nekkul Cheikh Ahmed Cissé comme ni ma ko waxee Mame Makhtar Gueye d'ailleurs maa ngi koy nuyu mhm. moom laa dalal sama playlist dimanche 15h mhm. waxtaan nañ ci lu yaatu donc na ko ñëpp xaar mais dañu ko combat bi tey nday xam nga fan la oh. ah oui na ko gaa yi xaar parce que Mame Makhtar Gueye mooy ndeyu mbill ji dalal naa ko ñu waxtaan ci lu yaatu yaatu mais si li si li nga wax loolu xam nga euh, jàng dafa baax si réew moom mooy permettre que nit yi am capacité de réflexion pour mën dépasser yenn yi. mais bu fekkee nit yi dañuy accroché aussi yu nga xamante ne ay futilité la. boo mooy wax li ngay wax comme réseaux sociaux yi c'est 3000 personnes 3000 personnes yooyu sa boo si doon xool ñooñu dañuy passé seen temps yëpp si internet bi. Mm. xam nga pour man jàng dafa baax il faut que nit yi jàng ko Sénégal ñu avancé euh, gën a am euh, bon esprit de discernement boo xam ne di nga xam loo xamante ne lii baax na. lu baaxul lu utile ak lu inutile. jàng dafa baax je suis d'accord boo jàngee français baax na mais boo jàngee alxuraan. loolu jàng kay waaw waaw jàng en général mais kii dafa jàng. waaw ah, kii wàcc na alxuraan. kii day tari alxuraan nii di firi li yàlla di wax. non je parle pas du gars moi je parle de des gens yi nga xamante ne ñoo si continué di si wax ñi nga xamante ne ñoo koy topp. ñooñu man ñooñu laa wax je parle pas de lui parce que ku nekk am nga sa conscience sa liberté def lu nga xamante ne yow su sa bu fekkee jàng nga tamit mhm. sa conscience may la nga def yenn yi bon loolu c'est ton problème mais pour man euh, moom lu ko waree moom mooy mu exemple comme que am na ñu koy topp Mm-hmm. mu exemplaire mu responsable ci lu muy def parce que bu fekkee nit dafa am ñoo lay topp il faut nga def loo xamante ni lu exemplaire la parce que dafa am ñoo xam ñoo lay topp mais beneen bi moom mooy nit ñi nga xamante ne ñoo si continuer di accroché wu di si commentaire di si euh, loolu aussi tamit niveau mm-hmm. esprit nit ki si la daf si daf si influer man par exemple je vais pas je vais pas bon <laughs> c'est pas doo ko seetaan <laughs> naa la ba àggali nday li ma doon wax léegi mooy combat bi dafa war a dem ci jeunes yi ñi nga xam ñooy dem di seetaan yenn live yi combat bi foofu la war a nekk loolu laa wax maam Maxtaar démb affaire bi du Cheikh Ahmed parce que Cheikh Ahmed ni mu mel ak li mu waxee gisuma mbindeef bu ko mën a changé parce que def nga benn yoon nga baalu ñu baal nga def ñaari yoon boo defee ñett ba ñeent dafay mel ni yaa ko tey dafay mel ni ma tey mais tey est-ce que waruñu focaliser wu ci jeunesse bi nga xamante ni ils sont de plus en plus scotchés sur les réseaux sociaux ñu xam nan ak naka lañ ko war a utiliser. waaw ah, jeunesse bu ñu defulee dara dañu taal si connexion di ronu wifi jàmbur yi di xool di xew aussi dañoo deful dara de. amuñu liggéey yow instant bi est-ce que yaa ngi connecté man damaa connecté damay liggéey waaw mu ngi noonu. dañuy liggéey ay ah, tamit. assi ah, mu ngi doon Aïcha tey seen bës loolu leen indi loolu. jaajëfal nañ la euh, bu baax a baax bu ko defee ñuy kati jotaay bi loolu jàmbur yi la ah. ñuy xool wifi jàmbur yi ak escane wifi wifi yëpp escane nañu ko. mais que sa xarit la day dégg. kan moo la sama xarit la yow. ñëpp ko invité am nga fit de ñëpp koy invité rek. bu <laughs> mu la dugal. bu ah. mu la dugal Aïcha a déggante. ah ku la ñu ngi déggante. parce que nag invité na ko benn ñaar bi yi Malick invité ko jeex na. d'accord mais mais comme que xam nga dugal de. voilà comme que xam nga ko. waaw soo ko jotee. nga wax ko ne ko moom comme am na ñu koy topp. mu changé yenn comportement yi. mu ngi lay seetaan ni wax ko ko. loolu ko ñëpp di wax alors. ñu bàyyi la day nga nga tàggatoo ak mu ngi noonu daal di masawaat rek comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure képp ku bokk si famille Ameth Ndiaye Birga ji fële ca Kaolack ki nga xamante ne seen doom jooju ñu ñàkk muy maman Koura ma madame Jigal fële ci Cambérène ñu ngi koy masawu baax a baax di ko jaale fin bi yëpp di teg njaal mi si sama loxo maman Maguette Pay defal ma ko fin bi Aïcha xam nga démb la septembre mhm. kenn ki nga xamante ne kenn rek la ci man muy sama rakk ji Awa Abdou Diop nga xam ne nee naa coon sekk nee na booy way nit danga naa di way sa yaay di way sa baay xam mënoon naa toog fi naaka ma ba jox way sa maam wala Séré Gueye Birama ak Demba Gueye Birama sama jaraafu Ndakaaru bi mais dama koy off di wax jikko yi mu làmboo sama diggante ak moom bëgg ma yërëm ma teg ma sama place def ma mag def ma nday lu jiitu sama yaay di fi jóge ba sama yaay jóge fi mu gën ko firndeel awa dama lay wax ne c'est que maak bokk ndey ak bàyyi lépp loo ragal bopp la jéer yàlla boo ko gis yàlla nga àgg new yoon di la ñaanal joyeux anniversaire dundal wéral yaay Moustapha Diop chéri Abdou Diop su may wax si yow sama xol day fees. foofu laa koy mhm. sa xol bi ni ni muy patpatee. aw ma sago si moom sama rakk jooju la dafa gën dafa yiw dafa am valeur dafa bëri jom. macha allah day liggéey ba wee dee mu yëkk di jox ma donc yal la yàlla defal jàmm rak. taw ndey taw mooy yaay donc voilà aw ñu ngi lay ñaanal joyeux anniversaire yàlla bàyyi la fii ak ndey petaaw ay ati at. amiin ah, diggante bi gën a jàpp nga jàpp sa mag ji am nga mag ju baax macha allah ah, donc yal leen yàlla defal jàmm asi merci beaucoup merci Aïcha. Mm. Euh, bon waroon naa tëjee feneen mais dañ koy may euh, nu mu tuddati sax. ah waaw ah nañ ko nañ ko ko may Aïcha di ko souhaiter happy birthday li nga mën at bii di ko defal sa mag ji yàlla nag ko yàlla euh, gën a bëril mu gën a saawaan baawaan ok. Euh, Pape. Euh, bon à lundi. incha allah voilà incha allah. merci beaucoup sant ñëpp di jërëjëf jaajëfal leen Mouhamed permets-moi juste de remercier euh, Abdou Aziz borom Jeunesse Couture nekkee fële ca Pikine il est bu magnifique bi macha allah merci Aziz borom Jeunesse Couture dox leen di daje ba demain incha allah samedi 18h